yow mi am jafe-jafe ci wàllu néew kàttan sa ndoxu awra baaxul wala sax sa awra nooy kaay ma jox la solution bi ci gën a gaaw produit 100 pour cent bio baa ngi nii muy produit boo xam ne dafa naturel amul benn effet secondaire dañu la koy jox nga boole ko lem ak limon di ko naan matin ak soir mu daal di saafara say jafe-jafe neexal sa biir néegu sëy am nañu pommade boo xam ne boo ko diwee ci sa awra mu daal di kuy dëgëral di jël ko waaye nag du ko guddal ma ne la bile moom itam dafa naturel lépp loo ci jël d'où le durel effet secondaire Je ak ñun yow mi 77 751 59 59 ou wala 76 313 93 94 ñun suñuy produit dañu la koy jox nga am satisfaction totale boko amul ñu daldi lay dello sa xaliss ñun rek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 ouba, michoui ouba, poulet ouba, pigeon ouba, pentad ouba, bol ouba. Kaima ma wax la ça Moi 77 629 0000. 00 fa saaf 77 633 57 57 Fou michui nehe. Moui mooy dibiteri Uba fu poulet nehe. Moui dibiteri Uba te nag kaay Uba Commandel nous livrer le Fangane Boule nehe bu la tamit nga tok sa kër commande Tabaski De say commande Bo amecheo. xew defal commande Boy dalal ay nit defal commande nga dibiteri Uba dalay defaral michui bu Tok. Do defal. dara débiteur yi Uba livré la cay Uba moo jaaxal réew mi BRVM la BOA Mali à la tête du top 5 de l'Ingham nga des plus fortes hausses de cours à l'issue de la séance de cotation bi nga lundi 11 septembre 2023 de la bourse régionale des valeurs mobilières BRVM la Banque of Africa BOA Mali mom elle s'est retrouvée à la tête du top 5 des plus fortes hausses enregistrant l'Ingham une progression de 6 64%. Le cours de cette valeur est passé de 1355 francs CFA le vendredi 8 septembre 2023 à 1445 francs CFA lundi 11 septembre 2023, soit une augmentation de 90 euh, francs CFA. BOA Mali efface ainsi l'idée de la baisse de 3,21% de la veille en dehors de BOA Mali. Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Vivo Énergie de Côte d'Ivoire nous avons plus de 5,66 à 840 francs CFA Safka Côte d'Ivoire mu plus de 1,79 1670 francs CFA SMB Côte d'Ivoire euh, plus de 1,50 1945 945 francs CFA et B6 Côte d'Ivoire plus de 1,47%, nous de 609 francs CFA. Tantôt top 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par Nenak modulé titre Société Générale Côte d'Ivoire moins de 2,86% à 17 000 francs CFA. Société de caoutchouc de Grand Bérébi, Côte d'Ivoire, moins 1,84% à 300 3720, à 3725 francs CFA. câbles Côte d'Ivoire, moins de 1,68% à 1170 francs CFA. BOA Burkina Faso, moins de 1,49%. Moutolok à 6600 francs CFA et à Abidjan Côte d'Ivoire moins de 1,14% montant à 1305 francs CFA Nous avons au niveau des activités du marché la valeur totale des transactions s'est établie à 1,1, s'est établi à 1,027 milliard de francs CFA contre 610,769 millions de francs CFA à la veille. La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 8,79 milliards de francs CFA une baisse de 8,79 milliards passant de 7

Candidat de Beno, leader le parti de la réforme, salue le choix du président et appelle à l'unité pour une victoire dès le premier tour. Membre le secrétariat exécutif national du parti de la réforme, nous salue le choix éclairé du président de la coalition. Benno Bokuyakar portant la désignation de M. Amoudouba comme candidat à l'élection présidentielle du 25 février. Nous koy les candidats de Beno, l'idée du le parti de la réforme Nous avons ñi saluer le choix du président et appel à l'unité pour li nga une victoire dès le premier tour dans le secrétariat exécutif national du parti de la réforme ñoom nag ña le choix éclairé du président de la coalition de Beno Bokk Yaakaar gannaaw ba mu le choix de M. monsieur comme candidat à l'élection présidentielle du 25 février pour le compte de la coalition coalition nak ñom ñi ngi woté que ñu bolo autour du candidat de Benno ndax mbolo moy dolé Amadou Ba pour une victoire dès le premier tour. Dibiteri Ouba pour la première fois dibiteri professionnalisé. professionnel ndawal Musoko ko dégg de am suñu marinaadu bop am suñu tiafka bop am suñu secret bop na nga xamé ni non la McDonald amé ay secret non la dibiteri Uba amé ay secret dibi Uba saaf ouba, Nishui ouba, poulet ouba, pigeon ouba, Pentad ouba bol Uba kay ma wax la fa dibi 77 629 0000 fa saf yap nexé 77 633 57 57 fa méchoui neexee mooy Uba fa poulet neexee dibiteri ou Uba te nak kaay ma wax la Uba Commandel ñu livrer le fangane nga ne bu la qualité tamit nga tok commande Tabaski De say commande bo de xew defal say commande dalal ay defal say commande nga xam ne débiteurs ubaa dalay da lay defaral méchoui bu toog doo defar dara débiteurs yi Uba la cay Uba moo jaaxal réew yow mi am jafe-jafe ci wàllu néew kàttan sa ndoxu awra baaxul wala sax sa awra nooy kaay ma jox la solution bi ci gën a gaaw produit 100 pour bio baa ngi nii muy produit boo xam ne dafa naturel amul benn effet secondaire dañu la koy jox nga boole ko lem ak limon di ko naan matin ak soir mu daal di saafara say jafe-jafe neexal sa biir néegu sëy am nañu pommade boo xam ne boo ko diwee ci sa awra mu daal di kuy dëgëral di jël ko waaye nag du ko guddal ma ni la b pommade moom itam dafa naturel lépp loo ci la du la jural effet secondaire jokol ak ñun yow mi ko ci 77 751 59 59 wala 76 313 93 94 ñun suñuy produit dañu la koy jox nga am ci satisfaction totale boko amul ñu daal di lay dello sa xaliss ñun rek ñoko mën. Hello guys